mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy farataal di déglu vendredi nag euh, bu waxtu wi jotee ngeen di faratal di déglu seen émission bii di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di ki nga xamante ne moom mooy docteur Sitor Ndour docteur nekk médecin foofu ci district sanitaire bu Xombol docteur ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu ñu sant la gërëm la ci nangu bi nga xamante ne nangu nga ko wuyu ci suñu invitation bi Euh, comme ni nga ko waxee man maay docteur Sidou Ndou di médecin santé de Khombole mhm. euh, maa ngi lay fay di nuyu mbokk auditeurs yi aussi mhm. di di leen rafetlu également invitation yi mhm. euh, en tout cas merci beaucoup votre disposition. d'accord sant ko gërëm ko docteur Ndour docteur tey dañu fas yéene amal waxtaan wu yaa euh, ci jàngoro bi nga xamante ne moom moo di paludisme ñëpp gën ko xam ci sibiru ñu daal di commencer rek ci li nga xamante ne moom moo def actualité bi ci semaine bi ñu génn kii di njiitu njiitu. ki ñu dénk lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr dafa xam la ne jàngoro bi di paludisme dafa yokku de vingt pour cent te am na at ci ginnaaw waxoon nañ ne que pour pourcentage bi wàññeeku na doonte Covid bi mu ngi fi woon mais terewul tey docteur ñu comb commencé rek ci yokk bi nga xamante ne yokk nañ ko ci cas yu bees yi paludisme euh, ci situation nationale bi lan nga ñu ci mën a wax pour tàmbale waxtaan wi ok merci soxna Fatou effectivement comme ni nga ko waxee ren dañ constaté ni cas de paie dafa yokk donc buñ ko comparé ak deux mille vingt. Mhm. ak deux mille vingt et un également vraiment depuis cinq ans euh, nombre de cas am ren pratiquement amuñu ko. Mhm. loolu nag bon am na yu bëri yoo xamante ne ay ay kii lañ ay ay ñoo xam ne seen xam-xam vraiment euh, mat na jëm ci affaire u sibiru. Mhm. liñ xalaat mooy. Euh, bokk na ci stratégie yu bees yi ñu indi cest dire que à partir de deux mille vingt et un dañ commencé di def li ñuy wax investigation. Mhm. léegi bu fekkee am na benn cas euh, sibiru bu am benn cas paludisme bu am ci benn gox euh, dañ fay dañuy wàcc ci kër gi nga xamante ni foofu la nit ki dëkk ak juróomi kër yooyu ko wër. Mhm. bu ko defee dañuy xool defal leen ay test ak test bees nag yoo xamante ni ñoo gën a sensible yi fi nekk. donc ñu leen di wax test ultra sensible mm-hmm. TDR ultra test de diagnostic rapide mm-hmm. ultra mm-hmm. test yooyu dañuy permettre ñu mën a détecter koo xamante ne bu ñu utiliser woon test yi ñuy test usuels yi ñuy utiliser ko mën a détecter duñ ko mën a xam donc biñ koy def Euh, ñu jot ak gis ay ay yeneen cas yu bëri yoo xam ne ak li ñuy wax cas annexe maanaam cas bi nga xam ne moo waral ñu jóg dem ci kër nit ki pour xool ak ñoom ñu dëkkal. Mhm. ci kër gi ak juróomi kër yi ko amul kenn koo xam ne am na ko. Mhm. loolu nag bu ñu koy def c'est-à-dire que dañuy augmenter diagnostic augmentation nag diagnostic facilement dañuy augmenter cas mhm. leneen li ñu aussi mooy gis nga at yi vraiment dañu yokk ay. ay ay poste de santé yokk ay case de santé yokk ay désor yokk également li nga xamante ni mooy hôpitaux gis nga hôpitaux yu mag yoo xam ne dañ leen euh, soit des tabax walla aussi ñu ñu ñu réhabiliter leen mm-hmm. loolu yëpp dafay tax augmentation de l'offre bu offre bi augmenter rek facilement dañuy gis ni euh, euh, capacité de diagnostic capacité de détection bi day yokk. Mhm. loolu mën na ko expliquer. Mhm. beneen bi aussi gis nañu pluviométrie daaw vraiment taw bi bëri woon na loolu aussi am na ñu bëri ñoo xam ni yaakaar nañu loolu mën na ci am impact. Mhm. donc loolu yëpp ay ay yoo xam ne ay ay phénomène la yoo xam ne yaakaar nañ ni mën na am impact beneen bi aussi. Euh, li ñuy wax élimination du paludisme bu ñu ko commencé dañ ni non gis il faut ñu am les vraies données du Sénégal. Mm-hmm. bu njëkk en général dañ doon xool les structures publiques bu ñëwee ci district xool euh, centre de santé ak poste de santé yu ko wër ñu xool les données rek mu jeex. Mm-hmm. ren nag ñu ne non dañuy xool les cliniques. Euh, les les les cabinets médicaux les cabinets paramédicaux en tout cas xool aussi les centres de garnison yëpp ñu enrôler leen. Mm-hmm. jël toutes les données ce qui fait que xëy na sax en réalité amul augmentation de cas mais capacité de détection le euh, complétude de données yi ñu am c'est-à-dire que données ñu bàyyi woon par exemple ñu nekk camp militaire ba garder ko fa bañ ko ñu bañ ko jël euh, ki am cabinam quelque part di liggéey sans kenn xam ne muy def léegi dafa changer. Mhm. quel que soit nit ki ministère dafa def ay stratégie ba ñu mën a am presque toutes les données. Mhm. donc actuellement nekkatul données publiques mais données du secteur ñu am impression ne augmentation des cas. Mm-hmm. certes mën na am mais en tout cas ni cas yu yokkoon yi man yaakaaruma ni il y effectivement augmentation bu day noonu. Mm-hmm. donc loolu jàngat la rek boo xamante ni d'une façon vraiment euh, ramassée euh, am na augmentation gaz mais ni ko gars yi foogee pour man. toll noonu. Mhm. c'est que dafa am augmentation de détection construction de yeneen case de santé construction yeneen poste de santé mais aussi euh, privé bi nga xam ne seen doole dañ ko doon bàyyi léegi dañ koy jël boole ko ci données. su secteur public ce qui fait que on a l'impression que cas yi dafa yokk mhm. mais augmente yokk même amee sax grave bëriwul mhm. d'accord mu mel ni euh, li nga li nga wax euh, dégg nañ ko augmentation bi xam naa problème mu donné la mais dafa mel ni fii ci Sénégal dafa am ay zones yoo xamante ne le plus souvent ñoom ñooy nekk zone yu gën a exposé bokk na ci xam naa euh, région wu Diourbel ak Kaolack tey bu ñu waxee ay yenn région yoo xamante ne particulièrement ñoom ñoo gën a exposé par rapport ak jàngoro boobu lan moo koy expliquer environnement bi la wala situation géographique bi ñuy yeewu o moom mooy waral yenn saa yi ñi gën a exposé par rapport à d'autres waaw bon li nga wax ñaari la parce que environnement bi situation géographique moo waral environnement tey jii boo jëlee de des zones comme Kolda comme Tambacounda. Kédougou mhm. comme Kédougou. moom boo demee côté Saraya c'est c'est extraordinaire. Mm -hmm. donc euh, Saraya donc Salemata donc foofu climat bi moo tax déjà li muy taw foofu dafa bëri. Mhm. donc il la pluviométrie est plus importante là-bas aussi boo xoolee seen seen seen géographie ah seen relief tout dafa favorable pour vraiment moustique bi nga xamante ne mooy anophèle femelle développé wu fa. Mm-hmm. donc souvent mooy tax ba zone yooyu ñoo gën a malheureusement bëri ay cas que yeneen cas ci nga xam ni pluviométrie ay deux mois trois mu jeex ba pare euh, bon actuellement boo xoolee dans le centre du pays. Mm-hmm. situation yi grawul trop. Mhm. à peu près niveau socio-économique bi xaw na tane. Euh, euh, aussi boo xoolee assainissement bi aussi xaw na tane ba mhm. même bu yooyu bëree développe li nga xamante ne mooy euh, condition yi ANAFEL Fabel soxla mhm. bëriwu fi amu fi presque moo tax ba malheureusement ou heureusement pour ñun heureusement pour la l'intérieur du pays cas yi trop mais même l'intérieur du pays di gis ni Euh, boo jëlee par exemple euh, région centre région centre euh, région Diourbel moo gën a moo gën a moo gën a bëri cas. Mm-hmm. moo gën a bërika dem kaf dem Kaolack. Mm-hmm. mais Diourbel aussi boo demee Fatick lu tuddati Touba moo ëpp cas. ci mm-hmm. région ndax boo demee Mbacké Mbacké léegi sax amatul même faciès que la le reste de la région. Mbacké dañ ko non Bambey laa bëgg wax Bambey dañ ko considéré comme Xombol ak le reste de la région de Thiès. Bambey ah. Bambey waaw. Mhm. d'ailleurs moom bokk na ci région district yi nga xamante ne dañ leen enrôler pour ñu nekk en pré-élimination. Mhm. donc mais le reste comme Diourbel Mbacké ak Touba ñoom vraiment seen cas bëri na te surtout Touba tumaam dugg bëri kaa loolu nag bon nit ñi ñu ngi joxe ay explication yu bëri. Mm-hmm. mais am na aussi le fait que xëy na population bi parce que euh, foofu c'est une ville religieuse. te kii di ville religieuse wax ay daara yu bëri xale yi peut-être ni ñuy pour ñu utiliser moustiquaire day xaw a jafe. Mm-hmm. loolu aussi bokk na ci li nga xam ne mën na ko expliquer. Mm-hmm. bien que mën na même sur le côté climatique yaakaaruma diggante euh, Diourbel. ak ak ak ak ak am un changement climat bu mën a expliquer yenn différence yi mais je pense que c'est plus au niveau comportement xëy na ñu ne ñu utiliser moustiquaire euh, yombewul noonu ci Touba ak peut-être euh, taalibe yi nga xam ni souvent euh, daara bi day bëri nit bu bëree nit nag pour ñu mën a utiliser correctement moustiquaire day day day day jafe. loolu mën na expliquer mais gis nañ ni à l'intérieur du pays Touba surtout moo gën a bëri ay cas. d'accord euh, docteur Sitor Ndour wax nga ko euh, à l'intérieur du pays Touba bëri na kaa wax nga ko sax euh, mun na am ay ay ay lu bëri loo xamante ni daf koy daal di expliquer wax nga ne Touba ville religieuse mais tey ndax waruñu privilégier lépp lu jëm ci wàllum communication ak sensibilisation bien sûr jóge ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci ministère de la santé ak action sociale pour gën a mën a xamle jàngoro boobu ak euh, naka nañuy def euh, ba fàggandiku fàggandikoo ba ñu def jël ci ay mesures préventives ok bon euh, c'est vrai que ministère de la santé à travers ses partenaires day appuyer district tey jii chaque district dafay def lu ñuy wax un plan d'accélération plan d'accélération de la lutte contre le paludisme plan boobu nag dafay am ay rubriques yu bëri dafay am ay pàcc yu bëri mhm. dafay am par exemple yoo xam ni ay action yooyu def la dafa am ak parti action yooyu def comme lu mel nii par exemple euh, euh, ngay distribuer ay moustiquaires lu mel ni par exemple ngay ngay ngay faj nit ñi comme ku am paludisme simple wala grave nga traité ko mais aussi dafa am yeneen stratégie boo xam ne pour nga former. personnel bi former infirmier yi sage-femme yi acteurs communautaires yi am beneen pàcc boo xam ne uniquement pour communication la te boo boo seetloo presque moo ëpp ci budget bi mhm. parce que dañ xam ni wala dinañ fi mu toll nii il faut ñu def benn communication bu baax ay sensibilisation bu baax ci population bi donc da ngay gis ñu financer ay dialogue communautaire te communautaire comme dañuy dem ci benn village comme su ma jëlee suñu district dañuy dem ci benn village mhm. euh, woo population bi ak euh, chef de village chef chef de village environnant yi euh, les groupements de femmes de jeunes après rassembler leen ci benn espace. Mm-hmm. après waxtaan ak ñoom ci paludisme laaj leen ñoom lan lañ yaakaar ni moo tax xëy na paludisme bi sibiru bi bëri. Mm-hmm. ñu joxe ay idées expliquer ou des fois sax raconter ñu ay phénomènes yoo xam ni xamuñ ko woon infirmier chef de poste bi nga day nekk day bokk ci équipe bi xamu ko woon expliquer ba pare ñoom ñu pousser leen ñu. andi proposer solution. waaye mhm. donc loolu mooy importance mhm. donc ñoom ñooy détecter déjà ñooy identifier les vraies raisons les vrais déterminants du problème ba pare ñooy proposer des solutions pour ñu résoudre problème bi. Mhm. bien que nag ñun ñooy sélectionner par exemple ah, dans le poste de santé de temps Euh, village de temps parce que léegi avantage bi surtout ñun suñu zone dañu am cartographie des cas mhm. maanaam cas xam nañ poste bi ñu bokk village bi ñu ko détecté dañu gis dans en petit rayon ñu am fa ay cas yu bëri mhm. donc ñun dañu descendre woo chef du village bi ak vraiment population bi rassembler leen mhm. leen ah ñu ko dañ seetlu ni vraiment ci ci ci dëkk bi lii ak lii ak lii cas paludisme dafa bëri te ñun xamuñu lan moo ko waral après mais avant là dañu leen defal benn briefing sur le paludisme. Mhm. nga gis ñu proposer ay expliquer lan moo tax ci seen xalaat après ñu jël rassembler bu fekkee am na ay lu ñu mën a ñu jël la parole aussi gën a renforcer laaj leen aussi ñoom lan lañ yaakaar ne mën nañ ko def somme solution pour euh, saafara problème bi et souvent ñoom ay ay solution yu pertinent la ñuy joxe souvent bu ñu joxee solution wala ñu proposer ko dañuy accepter ñu impliquer leen ci plan d'action bi ñuy def. Mhm. après bàyyi souvent plan d'action boo xam ne du jar sax xaalis bàyyi ñoom ñu dara correctement. Mhm. vraiment mooy profité aussi pour jaale encore une fois euh, El Hadj Diop. Mhm. am na mu nekkoon vraiment un acteur communautaire euh, dëkkoon si Thiénaba au niveau national au niveau international. mu dynamique woon lool à chaque fois bu ñu doon def loolu ci délégation bi doon bokk vraiment yal na ko yàlla yërëm xale ko àjjana mhm. mais daf doon bu baax a baax ci dialogue communautaire yi ñu yi ñu donc loolu benn partie la. Mhm. ci communication. Mhm. mais en même temps aussi dañuy dañuy dañuy financer pour def euh, ay émission dans les radios communautaires yi dafa bëri commune boo dem rek. boo demee euh, si sa exemple sama district par exemple boo demee xombol euh, bii nii am na am na am na district ñu dem Ngoundiane am na rajo communautaire Ngoundiane am na rajo communautaire Thiénaba Touba Touba Toul donc commune yu mag yëpp pratiquement ñoo am ay rajo communautaire ñu def signature ay contrat ak ñoom muy concours émission ak ñuy def ay spot publicitaire yu ñuy yu ñuy partagé te loolu aussi dafay permettre souvent ñu informe baax population mhm. en même temps ñu dañuy def ay activité innovantes par exemple yi boo xoolee euh, daaw dañu defoon comme ay genre pièce théâtrale def concours tout les troupes théâtrales yi nekk dans le district déposé ñu sélectionné sélection bi aussi ñu de façon démocratique ñu sélectionné aussi proposé leen ñoom ñu def def def benn benn film benn pièce théâtrale après buñ ko validé ñu def ko à travers les parce que am na aussi chaîne de télévision à li mm-hmm. def ko aussi dans les radios vraiment bu nit ñi di ko seetaan xam nu bëri ci paludisme mais surtout ñu ñu sensibiliser aussi ci ci sibiru ak ses complications ak ni ñu mën a def Euh, ba mucc ci. ci loolu yëpp ay stratégie de communication loolu district bi laa wax mais il y a cent dix-neuf districts du Sénégal. Mhm. chaque médecin ak équipe am dañuy toog xool en fonction de leur contexte yan façon communication lañ mën a def. vraiment nit ñi xam réellement lan mooy sibiru ak lan la mën a def ko yàlla musal leen ci mhm. donc vraiment mati côté sensibilisation euh, grâce à l'aide des partenaires ministère de la santé à travers le programme national de lutte contre daf ñuy financer ay programmes yoo xam ne moo ñuy permettre. Mhm. ñu def mhm. euh, mu mel ni tegoon ngeen benn plan stratégie nationale de lutte au Sénégal daanaka sax euh, bu ñu suivre actualité bi temps bi ngeen ko waroon def daanaka écoulé na tey boo ñu doon defal benn petit bilan par rapport ak plan stratégique national de lutte bi 2016 2020 la tey ñu ngi wax ne eh, pour yi xaw na yokk donte indi nga ci ay. explication boobu le plan boo ñu doon defal benn évaluation parce que apparemment ku ne plan de stratégie de communication am na objectif bu nekk ci ginnaaw. ok waa effectivement plan bi nag dafa dafa dafa refléter euh, faciès yi am Sénégal. Mm-hmm. maanaam Sénégal ni ngi gis dem ci benn benn région. Euh, mu am vraiment ay cas yoo xam ne bëriwul dara bu ñu jëlee par exemple région de Saint-Louis. bu rarement lañ fay am ay ay ay cas. Mm-hmm. donc bu def objectif objectif par zone la. Mm-hmm. parce que bu ñu zone nord euh, ak ak ak ak zone centre maanaam région de de de de tous les districts de la région de Fatick tous les districts de la région de Thiès ak Bambey waxoon naa la mm-hmm. région région Diourbel ñoom ñoo bokk par exemple situation en matière de paludisme. Euh, ñoom dañ gis ni vraiment boo xoolee euh, junniy nit ñoo jël moins de cinq personnes ñooy am paludisme loolu mooy incidence moins de cinq pour mille mm. la am Mm-hmm. Mm-hmm. bu bu district amee loolu dañ dañu naan ah kii kër mën nañ ko dugal ci pré élimination. Mm-hmm. chaque niveau dafa am ay activités yu mu war a dérouler. donc bi ñu bi ñu bi ko defee ñu gis ne yii ma lim sànq région de de Matam. région de de Louga région de de Saint-Louis région de Fatick région de Thiès. ak di ak benn district région région Diourbel muy muy Bambey ñoom ñoo bokk benn profil épidémique. donc ñoom gis nañ ni ku leen gunge mën nañ dem ba lu gaaw ñu éliminer paludisme ndax rarement la ñu am ay cas. Mhm. ñu ne ko mun la ñu def en sorte bu amee benn cas ñu gaaw ko régler. Mhm. donc ci biir district yi district yi ma lim nii ci biir district bu amee benn cas bu am rek dañuy def délégation dem ci kër gi. Mhm. bu jëlee kër gi dañuy xool nit ki réellement ñu identifier ko xool ñi nekk ci biir kër gi yëpp ñu defal leen test loolu la ñuy def boobu bu ñu leen defalee test xool aussi les cinq maisons les cinq concessions environnantes moom juróomi kër yi nga xam ne ñoo wër kër googu. Mm. ñooñu aussi ñu defalee ñoo ñëpp test. Mm-hmm. ñi am ñi am paludisme ñu traité leen ñu amul aussi après ñu dalal xel seen xel sensibiliser leen surtout ci utilisation moustiquaire après confiner. Mm-hmm. loolu daf ñuy permettre déjà ñu renforcer ko parce que déjà xëy na mu kooku mënoon na wàll ñu bëri ñoo xam ni. Euh, quelques jours après naroon nañ mais bu ñu ko defee dañ koy dañ lañ ko couper le mal à la racine avant même nit ki di def ay signes nga détesté ko nga nga détecté ko mm. te aussi dañu am ay ay tests yu bees yu ñuy wax des TDR ultra sensibles nga xam ne moo ñu permetre ñooñu xam ne seen taux eggagul foo xam ne ñu am nañu signe sentiruñ dara ñu mën ko gis ba defal leen traitement faj leen sur le champ sans ñu fay dara mm-hmm. donc loolu la ñuy def si district yi nga xamante ni ñoo nekk préélimination mhm. te loolu évaluation bi moo ñu ko may parce que xëy na bi ñu commencé gisoon nañ vraiment kaay xawoon na bëri donc amaguñu woon incidence bu ñu permettre ñuy def stratégie mhm. mais stra euh, plan d' accélération yu ñu doon def vraiment di ci am résultat di sensibiliser di faj moo ñu permettre ñu dem ba atteindre niveau bi nga xamante ni mën nañ commencé beneen air mhm. beneen air bi nag mooy vraiment élimination du paludisme ak ay stratégie yi muy àndal. Mhm. donc loolu mooy benn ñi nga xamante ni ñoom la seen ka wàcc bu baax. Mhm. à part loolu am na ñoo xam ne seen kaa wàcc na mais wàccul trop eggul ci ay cinq pour mille. Mhm. lool buñ ñu jëlee exemple euh, Kaolack ci la bokk Diourbel Touba Kaffrine ñooñu. Euh, duñ def investi duñ duñ def investigation mais dañuy renforcer surtout le diagnostic. Mm-hmm. jël les les structures privées boo xoolee Touba ak Kaolack li ko bëri ay structures donc ñu def en sorte que toutes les structures privées am ay ay ay TDR di def diagnostic bi mais aussi ñuy am seen données. Mm-hmm. en même temps ñu former personnel bi. comme ni ñu fajee comme ça ñu mën a faj correctement euh, feebar bi mais surtout aussi bu ñu xoolee ay cas ay kii comme Touba nga xam ne foofu moom cas yi bëri na même Kaolack sax ren. Mm-hmm. Ah, ñu fay def ay traitement de masse. Mm-hmm. des enfants. Mm-hmm. donc loolu vraiment comme CPS bi ngay nit ñi wax ñu ñu dem chez les enfants di leen jox traitement ñu ñëw xool rek jox leen traitement ACT. parce que ñoom déjà non seulement cas yi foofu la gën a bëree mais si si bu leen dalee aussi ñoom ñooy gën a sonn. Mm-hmm. donc bu ñu leen ko defalee dañu gis ni cas day wàññeeku baax loolu Touba lañ lañ ko commencé woon. Mm-hmm. après Touba dem nañ Kaolack Kaolack mi koy def peut-être prochainement mën nañ dem ba vraiment enrôler euh, enrôler ñu bëri loolu loolu te loolu loolu ñu def noonu xëy na fii lañ ko commencé. Mhm. Euh, Touba mais des zones comme Kédougou des zones comme Kolda commencé nañ ko depuis mhm. la chimio-prévention du paludisme saisonnier. Mhm. te loolu ñu ko def lañ xaar nawet nga xam ne cas yi day ñu jël les enfants donc traité leen. Euh, sans xool kii am na sida wala amul sida. Mhm. donc traitement ba ma de masse boobu dafay tax ñu permettre ñu non seulement ñu wàññi cas yi mais surtout ñu éviter ay cas grave mhm. koo xam ne commencé woon na ñàkk moyen wala boog euh, xëy na sàggante tax ba demul hôpital bu jëlee médicament yi day daal di tane. Mhm. donc loolu bi ñu ko commencé ñu gis ne am na résultat moo tax ñu léegi ay zone de Tambacounda de Kédougou commencé zone centre. lu mel ni ay Kaolack ak Touba. donc loolu aussi gis nañ ci ay résultats yu bëri bëri. Mhm. c'est les aussi ci stratégie la bokk. Mhm. mais aussi di euh, ministère de la santé wala boog PNLP dafa am ay partenaires comme Victor Link daf ñuy appuyer pour couverture en MILDA moo tax dañu am dafa am li ñuy wax. Euh, euh, distribution de routine de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Mhm. Euh, am ay canaux yu bëri. Mhm. par exemple district bu ñu jëlee district santé de Xombol dafa am centre de santé am vingt postes de santé chaque poste de santé dañ koy jox ay ay moustiquaires donc dañu xool moom à peu ñaat la war am comme femme enceinte ñu jox ko quantité boobu mu mu leen koy jox gratuitement. e enfants âgés de zéro à cinq ans ñu xool à ñaata la war am ci nit ñu jox ko gratuitement fekk population général moom dañ leen ko jaayee cinq cent francs. Mhm. mais pour mu également gën a yomb njaay mi gën yomb toogatuñu sax di xaar ku ñëw soxla moustiquaire dañuy xool les ñi nekk ci case de santé yi ak ñi nekk par exemple relais communautaire yi ñu leen di jox ay stock de milda ñoom bu ñu demee jaay ko cinq cent verser deux cent jël trois cent francs loolu permettre leen trois cent yi ci la ñuy defee ay communication ay causerie yooyu yëpp si lañ koy dollu ay loolu ay stratégie la yoo xam ni euh, vraiment euh, li ñuy def souvent ay plan stratégique di ko def chaque cinq ans chaque cinq ans moo ñuy permettre ñu identifier les problèmes mais aussi en xam chaque chaque zone ban façon stratégie lañ ko war a développer pour am ay résultats yu baax mmh, mmh. d'accord justement par rapport a ça docteur euh, dañuy euh, des ci wàllu woowu donte wax ne nañu ne am na benn hausse bu plus de vingt pour cent bu cas mais contrairement euh, wax lañu wax nañu itamit que ne ci tout tànk yi ak ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jigéenu warul yi ñu nekk ay soxna yoo xamante ne dañu exposé trop par rapport ak jàngoro boobu di sibiru ñoom contrairement ak hausse bi selon information yi nga xamante ne ba léegi ci ministère ministère de la santé ak action sociale la euh, jóge eh, xamle nañ ne ñaari catégorie yooyu dañ ci nemmeeku ab ab ab ab wàññeeku loolu tamit mu mel ni certainement sensibilisation bi eh, moo fa moo moo moo fa jouer quelque part. effectivement non seulement sensibilisation bi mais stratégie yu ñu développé. Mhm. Euh, soxna Fatou dafa am benn stratégie euh, bu ñuy wax TPI. Mhm. traitement préventif intermittent de la femme enceinte. loolu jigéen ju wérul en général bu demee pour def ses CPN ses visites dañ koy jox ay garab garab yi ñuy jël nag sulfadoxine pyriméthamine daf koy permettre ba du def paludisme. Mhm. du def paludisme xale yi aussi waxoon naa la sànq ni am na lu ñuy wax chimio prévention euh, du palidisme saisonnier loolu xale la ñuy ciblé. jox leen médicaments. Mm-hmm. distribution de masse de médicaments. Mm-hmm. ce qui fait que ñoom xaaruñu sax ñu def palu dañu leen jox déjà les médicaments. Mm-hmm. loolu dafay tax bu fekkoon amoon nañ feebar bu commencé mu mu régler que à la base. da koy régler. Euh, parce que dañu gis ne ñooñu ay ay deux mille dix deux mille seize ba deux mille dix sept ñoom gënoon sonn. ci ci ci ci ci biir. boo xoolee ñoo ci doon faatu ñoo ci doon am problème ñoo ci doon am ay complications gars yi nii li c'est des c'est des c'est des de la population. il faut ñu def leen ay stratégie yoo xam ne daf leen permettre vraiment ñu éviter ce problème. Mhm. parce que ñoom bu ñu imaginer femme enceinte bu am bu moom déjà waxuma moom rek mais bu amul attention mën na ñàkk ëmbam. Mhm. a ñàkk doomam. Mhm. xale boo xamante ni parce que xale yi en général bu ñu tolloo ci ay trois ans quatre ans dañuy am un problème d'immunité. déjà ñoom dëgëraguñu ba pare déjà bu fekkoon xale bu ndaw bu am deux ans un an un an wala six mois kooku day nàmp xëy na wenn yaayam moo koy may mu am ay anticorps yu bëri mais bu feree deux ans trois ans jëm kaw dafay nekk ci zone de transition bu métti mm-hmm. donc ñooñu dañ sens dañ sensible ci yenn affection yi moo tax sibiru sonaloon leen trop trop trop mais stratégie yu def xam ne lañ leen ciblé di leen defal ay traitement de masse jigéen ñu aussi ñu ciblé di leen defar ak TPI daf ñu permettre ba vraiment ñooñu euh, cas yi bëreekuñ fa beneen aussi xam nga wax naa la sànq politique milda yi mhm. bu fekkee xale bu amul zéro cinq ans c'est gratuit dañ la koy may bu mhm. fekkee femme enceinte dañ la koy may mhm. ce qui fait que euh, vraiment actuellement politique euh, de l'État dafay def en sorte que affaire bu yomb ci ñoom ñoom en delà au delà du sax boo xoolee am na CMI zéro cinq ans yoo xam ñi am moins de cinq ans ñu leen di jël en charge gratuitement donc ñoom euh, ku am palitoog këram euh, bañ a consulter ndax amul moyen du leen concerné femme enceinte également même place césarienne elle est gratuite loolu mhm. yëpp dafay tax ba vraiment c' des couches qui sont qui sont qui sont est des couches yoo xam ni vraiment ministère de la santé de l'action sociale daf leen teg vraiment au niveau de au niveau loolu yëpp mën na tax ba vraiment ñu ñu seetlu depuis en tout cas deux mu am ay diminution bu am solo contrairement au reste de, la population. d' accord euh, docteur Sitor Ndour euh, euh, euh sibiru nekk na euh, jàngaro boo xamante ne dafa am benn moment précis bu muy am maanaam ci période du taw mu mel ni nag période du taw ku wax période du taw wax ndox yi nga xamante ne eh, ndoxu taw la ak ndoxu fos yi nga xamante ne dañuy stagné wu nekk ci benn. en droit loolu nekk euh, euh, façon boo xamante ne yooyu dañ fay dañ fay élire domicile environnement boobu noonu tey jii lan nga jàpp ne vraiment war nañ ko def laata ñu yegg ci ci ci ci situation bu ni mel. loolu de vraiment wax nañ ko wax nañ ko waxaat ko mais xam nga euh, xeexu si warul nekk affaire bu personnel dafa nekk li wax. une approche multi multidisciplinaire multisectorielle ay secteurs yu bëri ñoo ci war a intervenir donc ñuy def secteur éducation war nañ ci intervenir di ci def ay leçons de vie environnement war nañ ci intervenir comme li nga wax ni ñu xool par rapport à la transformation de l' environnement parce que am na feebar yoo xam ne bëriwul woon bu ñu jëlee la dengue la dengue presque ñu bëri xamuñ ko woon mais léegi dengue presque chaque année mu am épidémie au Sénégal. Mhm. transformation environnement bi moo tax ba ñu favorable au développement de certaines de certains de certains moustiques. Mhm. donc loolu aussi il faut tout en tout cas ministère de la santé gën a liggéey ak yeneen secteurs yi ku mel ni environnement pour ñu def en sorte que vraiment mu bañ a bëri boo xoolee léegi. bassin de rétention baax mais tu vois que fi bëri fi nga xam ne foofu lañ nekk day bëri yoo mhm. mmh. taataa yi ngay gis biir biir dëkk bi dafay tax yooyu bëri. Mhm. loolu tax donc il ñu liggéeyee ak yeneen ministères yi pour vraiment loolu yëpp ñu ko éviter. Mhm. préparer nous sommes au mois de mois de mai mhm. bientôt l'hivernage préparer xool ñu changer dafay truc là euh, aménagement yi gis nga Dakar naa fa man moom Dakar du mais gis naa ni temps yële dafa bëri ay loolu yëpp malheureusement c'est pas bon pour pour pour pour le paludisme travaux yu fa nekk yu ci bu bu bu bi commencé taw bi commencé ndox mi day taa n'importe où et ce qui fait que euh, yooyu day bëri et am na nu muy demee paludisme day am am augmentation de cas. Mm. donc loolu yëpp ko expliqué ce qui fait que phénomène yu bëree bëri mooy intervenir dans les de de d'épidémie tout cas augmentation wala de cas. Mm-hmm. ñu gis benn benn boo xam ni par exemple pays exemple la jox rek ay diggante la pourquoi di construire ay route wala leneen mais loolu aussi dafay favoriser euh, la stagnation d'eau loolu mm-hmm. également favoriser la survenue des des, des mm-hmm. malheureusement on peut avoir augmentation de cas mm-hmm. donc je pense que waroon nañ xool ni ñuy di consulter les, les, acteurs de la santé pour ces genres de travaux ñu xool période yi ñu koy développé. Mm. c'est très bien mais bu ñu demee ba constitution yi tax ay cas yi du yokk nit ñi décédé à mon avis ça pose problème. Mm-hmm. Euh, donc euh, mm-hmm. y waaw donc loolu je pense que il faut ñu tenir ci compte xam ni loolu yëpp mën pour daal ñu wàññi civil ñu xeex complètement il faut ñu impliquer les autres acteurs. Mmh. Pas seulement les, acteurs, les relais, les communautaires, mais les acteurs des autres secteurs. Mmh. Le en, en, priorité, mais aussi le secteur de l'élevage euh, partout. Mhm. Buñ travailler ensemble, l'aménagement du territoire et tout et tout, buñ ko defee honnêtement mën nañ am des résultats très probants comme ni mhm. euh, euh, euh, nii nii nii sax docteur amaana ma am na région yu taw wax nga ko nekkuloo dakaar mais nii nii nii eh, nekk guñu ci taw bi mun nañ wax ne tawagul dakaar mais am na yenn quartier yoo xamante ne da ngay jàpp sax ne invasion de moustique moo fi am ko ñi moom daanaka yoo yoo kese la sama question bu ma la bëgg laaj mooy dañu daan ngeen dégg que ne am na benn moment de l'année waa service di d'hygiène dañu daan euh, pulvériser mais mu mel nii année yi ñu génn nii e gox-goxaat ak yenn koñ yi nga xamante ne taataa ndox dafay am euh, euh, pulvérisation bi dafa mel ni e nekkatul lu nekk à l'ordre du jour. effectivement loolu même hmm, pratiquement ñun suñu district même chose la ñu Euh, bi ñu bi ñu interpellé waa service d'hygiène en tout cas au niveau au niveau au niveau local ay explications yu bëri la ñuy joxe. Mm-hmm. bokk na ci ñoom amuñu un budget c'est-à-dire boo jëlee la sous brigade d'hygiène amul budget. Mm-hmm. Euh, xëy na ñu sax des dañu am PTA dem demander kaay boole ñu ay partenaires ñu am tuuti mais ñoom amuñu un budget bu leen di permettre nee na ñu jënd produit donc souvent kenn moo leen di woo euh, jënd produit ñu compal ko. wala boog mairie bi def benn budget jox leen xaay quelque en tout cas une somme ñu jënd produit pour mën a def euh, pulvérisation loolu benn explication am na explication boo xam ne aussi euh, produit yi ñu doon utiliser léegi boo xoolee mën a mënatul musique yi dara donc dañ koy def gis yooyu euh, di dox di daw di def seen truc sans sans pour autant mu am impact donc donc ñoom dañ dañ résistant à ces produits produits yu sophistiqués yu jafee am actuellement souvent lañ mën a utiliser pour am un résultat bu probant loolu aussi bu am na ñoo xam ne dañ koy jël comme explication moo tax ñu bëri woo chaque fois ñu ñëw di def saupoudrage di def euh, aspersion intradomiciliaire bëriwul. waaw mhm. nag euh, bu fekkee programme national de lutte contre le dafa am comme li waxee sànq en fonction des zones foo xamante ni dañ fay def ay ay ay ay ay campagne AID. aspiration intradomiciliaire. Mm-hmm. nga xam ne ñoom dañuy am ci ci ci kër yi di di di pulvériser dans les domiciles. loolu nag pratiquement le nord ak le sud-est lañ koy def comme ay ay Kédougou ay son yooyu lañuy lañ koy def am na Matam Kanel Ranérou Linguère souvent zone yooyu ak gu Koumpentoum Koungheul yooyu yëpp dañ dañ am yoo xam ne ñoom ñoo xam lu tax ñu def ko mm-hmm. par exemple ci seen objectif en fonction ci nombre de cas ya fa am loolu la ñuy basé pour ñi euh, zone bi éligible na zone bële éligible ñu bu fekkee programme national de lutte contre le paludisme wuñ ko dafay métti topp pour ñu def loolu. Mhm. des nag nga gis maire yoo xam ni ñoom ñooy def seen budget génn xaalis à l'approche de l'hivernage pour vraiment def aspersion def saupoudrage pour wàññi yooyu. Mhm. am na aussi ay scientifique yu yuy wax ni saupoudrage FM demeewul noonu. Mhm. parce que tey jii boo defoon saupoudrage mu taw mel na ni defoo dara. dafay dafay volat dafay dafay naaw. waaw non non taw bi bu ñëwee da koy neutraliser. da koy neutraliser d'accord. waaw donc liquide li nga def ak kii yëpp day disparaître dootu am parce que da koy neutraliser mhm. loolu yëpp tax na ba mu am ñoo xam ni c'est des scientifiques ñoo soutenir ni c'est une stratégie qui n'est pas efficace. Mhm. waaw ñoom pour ñoom saupoudrage bi muy def nii bon c'est pas très efficace amul amul amul importance trop. mais bon en tout cas leer mooy en tout cas tey jii boo demoon ci dëkk bu bëri yoo nga def ko dans les heures qui suivent dans les jours qui suivent da ngay gis ne vraiment day wàññeeku bu baax a baax. Mhm. loolu moom yéen ñi koy mën a assister mën ngeen ko mën ngeen mën ngeen ko seede. Mhm. Mhm. Euh, am na ay raisons yu bëri ñu naan efficace ñi amuñu budget pour di ko def régulièrement ñeen gis ne également actuellement musique la ñoo commencé résistant ba boo ko defee sax en tout cas résultat bi ñu ciy xaar doo ko am. Euh, euh, bokk na euh, ci politique de lutte état bi xeex lépp jëm ci wàllum paludisme mettre l'accent wax askan wi ñu jëfandikoo moustiquaire imprégné mais ba fi may wax ak yow nii am na ñoo xamante ne peut-être utiliser yenn produit yoo xamante ne des fois c'est toxique ndax dafay dégager lii di chaleur wala muy dégager fumée moom moo leen gënal foofu ñu utiliser moustiquaire imprégné tey ndax aussi waruñu sensibiliser sensibiliser askan wi ci moustiquaire imprégné wala jàpp nga ne eh, ku nekk eh, ci askan wi rek am nga eh, large choix ba ut sa stratégie yow bi nga xamante ne mooy sa méthode préventive. ok bon euh, sincèrement tey jii bu waxoon moyen préventif bi mm-hmm. mm, mm-hmm. gën a efficace. pour la prévention du paludisme. loolu moom vraiment nekkul loo xamante ne dañ ciy hésité wala no mhm. donc problème bi nag mooy nan lañ mën a def ba nit ñi adopté ko parce que surtout yow Dakar dañ gis ni utilisation de la moustiquaire est très faible. Mhm. à Dakar. à Dakar. Mhm. de la moustiquaire à Dakar est donc yan stratégie lañ mën a def ba nit ñi ko loolu moom c'est spécifique à la zone xëy na chaque district zone kafa nekk. ak en collaboration ak ay acteurs communautaires am mën na xool ñii ban canal laa mën a utiliser pour def communication boo xam ne dinaa leen jot. Mhm. soit nga utiliser les réseaux sociaux wala boog euh, acteurs communautaires di def ay visites à domicile. Mhm. wala ñu def ay ay ay causeries en tout cas moom moo war a xool élaborer benn plan d'action boo xam ne dina ko permettre mu def une très bonne sensibilisation de convaincre nit ñi ñu koy utiliser. Mhm. parce que c'est capital à la limite indispensable. sans, sans, sans tenir compte du fait que nous sommes en période d'hivernage ou pas. douze mhm. heures sur douze lañ ko war a utiliser. moustiquaire imprégné yi. moustiquaire imprégné dañ ko war a utiliser à tout moment. Mhm. waaw noor ak nawet. Mhm. loolu vraiment moo ñuy permettre. ñu et la preuve gis nañu heure bu ñu defee benn benn distribution benn benn campagne hmm, de distribution de Milda au niveau national cette année wala l'année qui suit cas yi day wàcc bu baax. cela veut dire que vraiment bu ñu ko utiliser euh, vraiment gis njëriñ yi mhm. donc loolu la ñuy def ba nit ñi ko loolu aussi la première chose nag mooy def faire en sorte que mu gis nañu ay d' abord mhm. amee ba pare nag ñu def stratégie de communication mu koy utiliser mhm. parce que am na ñuy mis am milda mais denc ko ñu koy utiliser donc il d' abord nit am ko après ñu jàll nag ci beneen sax parce que ñun bi ñu bi ñu koy bi ñu koy évaluer bi ñu koy naan am na euh, par exemple la disponibilité. Mm-hmm. am mm -hmm. aussi l'utilisation mm-hmm. donc la disponibilité elle doit être cent pour cent. Mm-hmm. tous les ménages doivent avoir la Milda. après nag ginnaaw bi ñu amee ñu xool ñu sensibiliser pour ñu mën di takk tàkk di ko utiliser à temps vraiment à temps plein. vraiment moo tax ba boo xoolee bii mooy stratégie boo xam ni amul fii fii bëri na kaa fee bëriwul kaa xam wax naa la sànq ni. Euh, CTS dañ koy utiliser ay Touba utiliser ko Kaolack utiliser ko euh, Kédougou Kolda mais amul amul amul Thiès dans la région de Thiès par exemple. Mhm. bu defee par exemple AID wax naa la ko am na ay côté Matam et mais amul dans la région de Thiès. Mhm. Ah, investigation yi ñuy def am na fi mais amul Tamba amul Touba. Mhm. par contre Milda nag moustiquaire imprégnée partout la. dans tout le pays. vraiment dañuy def ay stratégie pour nit ñi am moustiquaire imprégnée malheureusement ren Dakar ak Thiès bokkuñ ci ci ci vraiment euh, campagne distribution de moustiquaire mais am nañ li ñuy wax euh, mm-hmm. la routine Sénégal à travers Victor Link am nañ suffisamment de milda mm-hmm. pour toute la population mm-hmm. l' essentiel mooy district bi moom mooy def commande en fonction ci population en fonction aussi ci ci capacité euh, de de conservation parce que xëy am na loo xam ne boo ko commande doo am ko dugal mais en fonction ci capacité de de conservation nga def sa commande pour jox gratuitement aux femmes enceintes aux aux enfants âgés entre zéro cinq ans mais aussi di ko di ko jaay nit ñi à à cent francs ñeneen ñeneen ñi donc loolu je crois que bëgguñ district yi respecté également sensibiliser population ba ñu xam ko disponibilité mën na baax. Mm-hmm. te buñ ko facilement avec une bonne communication dinañ ko utiliser. Mm-hmm. loolu daal mooy stratégie bi gën a efficace. bu ñu ko bëggee jëlee si biir il faut ñuy tëdd ci ñu si mm-hmm. Euh, ba moom moo waral sax euh, campagne de distribution de masse de moustiquaire imprégnée à longue durée bi daal dinañ ko door sax xam naa ne euh, bu weesoo ñaari dëkk yi nga fi wax ça concerne toute l'étendue du territoire ak tout l'étendue du territoire national. Mhm. Mhm. d'accord mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi déglu seen émission bii di SOS santé te nag SOS santé am mbégte am ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom mooy docteur Sitor Ndour docteur Sitor Ndour nekk médecin eh, du district sanitaire de Khombole wax nag tuuti rek ci li nga xamante ne moom mooy jàngoro bi di paludisme ñëpp gën ko xam ci sibiru docteur eh, ci ay recherche dañuy xamle ne eh, eh, paludisme bu ñu fajul correctement mun na am ay complication mais mu mel ni askan wi eh, xamuñu ne palu bu yàgg mun na jur œdème pulmonaire wala mu jur atteinte cérébrale ndax jàpp nañ ne fabu euh, sibiru donte day faat nag mais beneen complication yi mu mel ni askan wi maîtriser wuñ ko trop tey boo ñu doon wax euh, ci ban euh, degré la doomu aadama bi di am sibiru ba mu jutal ko ay complications complication ok effectivement sibiru dafa nekk loo xam ne complication pratiquement mënuñ ko wax dafa bëri hmm. pratiquement organe yëpp la mën a daal hmm. tey jii sibiru mën na dem compliqué ba jox nit insuffisance rénale hmm. te gis nga insuffisance ma liñ ci wax nekk loo xamante ni euh, mën na dem ba egg au stade de de d'insuffisance rénale au stade terminal euh, bay jar ay dialyse wala boog ñu ñu ñu lay def ay implantation. Mhm. xam nga lool vraiment lu lu metti la. Mhm. en plus de ça aussi kii mën na dem am lu wax neuropaludisme. Mhm. maanaam paludisme dem def bopp bi ba moom mu nekk dans le coma. loolu aussi malheureusement te am na stade yoo xam ne bu malheureusement euh, nit ki mën na ci ñàkk bàkkanam. donc loolu nekk loo xamante ni lu lu lu la lu lu lu lu métti la gis aussi euh, ñu wax ictère. ictère. waaw maanaam nit ki dem ba jaune. mooy lu ñuy wax pays wala bokkul. waaw waaw comme waaw comme li ñuy wax pays rek. dem mhm. ba bët yi jaune loolu yëpp ay complications ay complications kii lay doon. Mhm. ay complications euh, sibiru. Mhm. sibiru dafa bëri aussi xam nga sibiru en général bu ñu lay expliqué. Euh, doomu jàngoro bi dafay dem ci globules rouges yi. Mm-hmm. bu ci duggee da koy day multiplier multiplier mën da nga koy ay euh, nag comme genre ball la. Mm-hmm. ah da ngay da ngay gis muy ba day jeex mu élasticité bi day jeex mu toj. Mm-hmm. bu tojee chaque plasmodium mooy microbe bi joxe sibiru dem dugg ci benn globule rouge defaat la même chose defaat la même chose finalement dañuy dem ba nit ki dootul am dara. loolu aussi eh, eh, anémie la. anémie mm-hmm. waaw te anémie boobu muy muy entraîné xam nga anémie dafa nekk loo dafa nekk loo xam ne mënul ñàkk ci nit. Mm-hmm. anémie boobu bu yàggee day dem ci xol bi jox ko li ñuy wax insuffisance cardiaque nit ki xëy na paludisme paludisme bu simple la amoon di gérer affaire bi dem ba compliqué ba deret bi manqué mu am anémie anémie bi dem ba xol bi attanu ko xol bi am. vraiment tële ba am lu ñuy wax insuffisance insuffisance cardiaque mm-hmm. donc kooku mën na dem ba am problème cardiaque ba malheureusement mam na ci ñàkk bakkanam sax mm-hmm. donc loolu ay complication la yoo xamante ni sans compter nag surtout ci xale yi ay convulsion nit ki di crise mm-hmm. crise crise yu bëri baaxul parce que mën na dem ba nit ki am problème xel wala sax mu rey parce que crise muscle muscle moo koy def mais muscle am na muscle yoo xam ne bu xool par exemple xool muscle la bu amee problème mais nit ki day faatu. Mhm. diaphragme moom mooy le muscle respirateur principal bu demee ba boobu crampe wala muy muy paralysé. Mhm. kooku dootu mun a nooyi mhm. facilement mën mën nekk bakkan donc dafa nekk loo xamante ni dafa bëri bëri bëri ba malheureusement euh, mënuñ ko compter sans compter loo xamante ay ñuy wax œdème pulmonaire. am na lu ñuy wax hypoglycémie maanaam nit ki dem ba dootul am suukar. Mhm. suukar suukar bu wàcc nag moo gën a gaaw a rey nit. Mhm. yooyu yëpp dafay dafay dafay découler ci paludisme bu chronique. très bien day même même bu chronique sax. Mhm. paludisme bu grave. am na chronique mooy xëy na durée bi sax. mais gravité bi aajowul ci durée. ajul ci durée mën na bañ a chronique nekk vraiment paludisme grave boo xam ni comme li ma wax ne day dem nit ki nekk dans le wala convulsion yu bëri wala mu dem ba am problème wala dem am défaillance cardiaque insuffisance cardiaque ictère hmm, insuffisance rénale boo xam ne mën na dem sax ba ñu koy defal dialyse wala ñu koy defal ay implantation rénale mhm. anémie bi sévère loolu yëpp ay complications la loo xamante malheureusement euh, kii mën na ko joxe euh, si numéro <laughs> euh, mu mel ni kon ñi euh, ci eh, dañu jàpp ne rek sa yaram bu tàngee nga dem ñu defal test yi daal di lay jox garab euh, ndax nit mën na nekk lu ñuy wax lan mooy expliquer pardon nit nekk un paludéen damay dégg expression bi kii paludéen la chaque année daanaka bu hivernage bi taxawee dafay dafay sibi subir bu métti lan mooy expliquer doomu aadama ñuy naan ne kii dafa paludéen C'est l'expression. <laughs> euh, non bon xam naa abus de langage la. Mhm. mais malheureusement ci ci la. d'accord. ndax koo ne la man du may nekk xale chaque année telle période mu doon développer la maladie. loo donc loolu ça ça ça day dépendre euh, ci ci ci incidence su paludisme zone bi. Mhm. c'est-à-dire que nit en permanence. dañuy am une quantité de plasmodium dans le sang. Mm. ce qui fait que moom même bu daa bu feebarul ni nit ñi xam ne feebar na sax am na quantité de plasmodium dans dans le sang donc moom pour mu def sibiru pour mu def paludisme dafay dem ba am yenn quantité yi d'ailleurs loolu daf may permettre moo waxaa li na naan sujet neuf tey jii bu ñu demoon ba hmm, Thiès amatul cas. Hmm. district Khombole amatul benn cas. ñu toog deux ans par exemple nekkuñu benn yoon en contact ak Plasmodium dañuy dem dañuy nekk ñu wax sujet neutre sujet mooy koo xam ni xamul si biir di mel ni tubaab bu dëkk dak euh, France war a ñëw Sénégal. Mhm. donc saa yu man ma bëggee dem Tamba wala Kolda nga xam ne bëri na ka damay jël sama matuwaay. Mhm. def genre moyen de prévention pour. su ma demee même su ma nekkee en contact xëy na du ma développé yenn cas parce que ñooñu ëpp lu def cas grave. Mm-hmm. sa yaram du miin doomu jàngoro yi bu la attaqué da mën facilement mu sonal la nga def palu te xam nga di palu grave malheureusement di risque de décès. Mm-hmm. donc loolu moo tax ñooñu mooy facilement la ñuy def ay complications. Mm-hmm. contraire bi nag moo nekk yeneen zone yeneen zone ñoom en permanence ils ont le plasmodium dans le sang. donc souvent yi la ñuy def seen seen seen cas moo tax ñooñu nooy naan man chaque période nee naan chaque hivernage wala chaque de de novembre wala mu la chaque mois de septembre man quoi qu'il en soit je vais faire le palu. Mm-hmm. donc souvent loolu loolu moo koy def donc c' est surtout à l' mm-hmm. de la maladie. Mm-hmm. par exemple da ngay gis xam ni bu fekkee suñu zone yi nga toog dix ans doo def le palu. parce que c' est ans sans faire la maladie. waa c' est c' est le contraire vraiment au niveau des zones de forte transmission nga xam ni en permanence dañuy am les euh, le plasmodium presque dans le sang. Mmh. Euh, docteur Sitor nga nekk euh, médecin bu district sanitaire euh, bu Xombol tey boo ñu doon defal benn taxaw seetlu jëm ci naka nañuy gérer jàngoro boobu di sibiru ci ci sa ci ci gox bi nga xamante ne foofu nga nekk nan nga ñu ciy mën a wax. bon li ma ciy wax mooy ni ñu koy gérer euh, euh, bon euh, dafay dépendre ci suñuy ci suñuy mois. Mm-hmm. chaque année dañuy toog les les infirmiers chefs de poste parce que fii am na vingt postes de santé ak le centre de santé muy vingt une structures publiques. Mm-hmm. am na aussi ay cabinets paramédicaux am na aussi des des des des infirmeries d'entreprise ensemble dañuy toog discuté ci vraiment formule bu ñu mën a def pour lutter contre le paludisme. Mhm. bu ñu ko après dañuy xool en fonction des zones parce que xëy na xombol li nga xamante mooy réalité xombol mën na bañ a nekk les mêmes que réalité de Thiénaba de Ngoundiane de Ndiène Sirakh de Toubatoul. Mhm. donc en fonction des spécificités de chaque poste ñu proposer ay activités. Mhm. bokk na ci activité yi comme li ma ko waxee sànq dialogue communautaire. Mm. bokk na ci activités yi aussi signature de contrat avec les radios communautaires am na également vraiment def en sorte que dans chaque poste de santé mu am suffisamment. de sulfadoxine primétamine pour ñuy jël en charge les femmes enceintes gratuitement mhm. fekkee état joxewul lu bëri ñun dañuy xool en fonction ci fonds de dotation yi communes yi di joxe nan lañ mën a def pour am ko rendre gratuit ça au niveau des au niveau de santé. Mm-hmm. dañuy def également euh, des stratégies d'investigation comme ñun nekk en zone d'élimination bu fekkee am na benn cas bu positif ci benn zone dañuy dem au niveau au niveau niveau de la maison tester tous les cas toutes les personnes jël aussi les cinq concessions autour de la maison tester également ña fa nekk ñi positif ñu ñu jox leen euh, ñu jox leen ces ñi négatif nga xam ne amuñu feebar ñoom ñu sensibiliser leen bàyyi leen mhm. mais également dañu am benn stratégie def en sorte que ñëpp am moustiquaire mais aussi di ci dëkk stratégie boobu mooy euh, chaque les vingt postes de santé chaque poste dañ koy jox équivalence nombre d' enfants âgés entre zéro cinq ans équivalence femmes enceintes ba pare jox ko benn stock boo xam ne da koy jaay la population à hauteur de cinq cent francs la moustiquaire. Mhm. ba pare ci poste de santé yi dafa am ay DSDOM cest à ay nit ñoo xamante ni day nekk ci ay zone ay village très éloigné nekk foofu foofu ko village yoo xam ne amul case de santé amul poste de santé ñoom képp ku fa présenté am am am fii ak dañ lay defal test bu positifé ñoom am nañ am am nañ TDR am am ACT ñu jox la ACT ACT mooy médicament bi ñuy fajee si mhm. yooyu. ñooñu nag dañ leen di jox en même temps moustiquaire ñu koy distribuer donc bu bu ko post bi joxee moustiquaire da koy naan chaque moustiquaire yow trois cent nga ci am poste bi am ci deux cent. Mhm. trois cent yooyu mu am nag da koy moom mu def ci ay yeneen. stratégie comme di def ay visite à domicile di def ay causeries i leen expliquer lan mooy sibiru lan lañ mën a def yàlla dugal mooy si mhm. donc ay stratégie la yoo xam ne dañ koy def pour lutter contre ça également bu ñuy dem defi ay dialogue communautaire dañuy ànd les acteurs communautaires comme les bajenu gox les relais communautaires les acteurs des cases des DSDOM ak les ICP ñu dem au niveau du village waxtaan ak ñoom ci si loo xam ne ça tourne autour du paludisme ñu bëri bu ñu defee loolu dañu gis ne vente bi day yomb. Mhm. ñu bëri ñu ah dañu yaakaar ne paludisme amatul wala paludisme grave bu ñu la expliqué complication mu mun a jox ngay daw dem même bu fekkee euh, nga jënd. wala boog buñ ko ba pare mu am ñu bëri ñu intéressé dañu naan yow des bi nekk ci gox boobu dañ lay jox ay milliards nga dem distribuer mhm. rek. la yoo xam dañ koy def ñun entre nous pour ensemble ñu am une baisse des cas. te gis vraiment depuis des années pour fa yàlla yi mu ngi te aussi surtout na prise en charge bi jaar yoon. ndax loolu moo am importance mën na am cas te yi am ñu am dañu am benn circuit boo xam ne même si seen un cas on fait en sorte qu'on l'évalue on l'évalue on l'évacue fi mu war a dem ñu jël en charge mu wër dellu ci ci ci njabootam sans problème. feebar mhm. moom fi ñàkk mais li le plus important mooy bu amee rek ñu am benn. Euh, stratégie en tout cas benn organisation bu ñuy permettre ñu jël ko en charge rapidement. jërëjëf mhm. yàlla ñuy suturaal vraiment ñu ngi ciy def ay jéego baax muy profité aussi pour remercier. Euh, les infirmiers chefs de poste. Mhm. les sages les membres les médecins ak tous les membres vraiment du district sanitaire ak aussi les acteurs communautaires ndax ñoom souvent dañ leen di fàtte te le plus gros du travail ñoom ñoo koy def. Mhm. Mm. population bi ñu sensibiliser quel que soit li ñuy def bu fekkoon dañ faj rek la ñëm faj toog c'est sûr que duñu am résultat mhm. mais sensibilisation bi ñuy vraiment approche bi ñuy am pour waxtaan ak nit ñi sensibiliser ba ñu utiliser mu cigarette leen ba ñuy moytu sigaru loolu c'est capital mënuñ ko négliger. Euh, mu mel ni fu nga nekk euh, am nañ fa euh, politique bu nga xamante ne teg ngeen ko ngir xeex jàngoro bi di sibiru apparemment politique bi mu ngi porter bu baax ses fruits. effectivement mu ngi porter bu baax ses ses parce que vraiment gis nañ ni ñu ngi adhéré. moustiquaire li ñu ciy jaay kenn xamul lu mu toll au niveau des de des des de tous les postes de te loolu dafa nekk indicateur bu baax le fait que nit ñi nangu di wut moustiquaire le que femme enceinte bu ñëw ñu jox ko le fait que xale xale yu ñëw soit vaccination wala loolu dafa baax loolu mooy tax déjà ñu gis ni Euh, non seulement nit ñi am nañu moustiquaire mais dañ ciy tëdd. Mhm. parce que koo jot moustiquaire gratuitement dem këram fekkoon mu mais da nga koy ba pare am nañu aussi vraiment ay partenaires yoo xam dañuy permetre ñu mun a def gëstu bi. daal mhm. a visite dem ci kër yi vérifier ba xam ndax. muskeer yi ñu leen jaay wala yi ñu leen may ñu ngi koy takk wala takkuñu ko. docteur Sitor nag mu mel ni waxtu wi waxtaan wi am na solo waaye li ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañu ca. ah yàlla na di soxna Fatou. <laughs> daanaka def nañu cinquante cinq minute de eh, waxtaan wi moo intéressant woon rek mais ñoo ngi ci cëppaandaw la. ok ok <laughs> en tout cas vraiment euh, neex na trop maa ngi remercier bu baax. ci mhm. man. Hmm, Sénégal bëri na ay médecin médecin vraiment yu ma yu xam-xam. Mhm. yu ma mag donc boo defee sa choix ci man vraiment dama ci sawar. wala mhm. ci sant également. wax ni aussi personnellement je disponible euh, boo ma soxlaa ci loo santé la. nga yaakaar ni mën naa mën naa mën naa la ci dimbali en tout cas parce que pas dimbali sax mais partager ak yow mën naa def pour la population. Mhm. ndax encore une fois ñun dañ nekk euh, di def dañuy wax santé publique. yi di santé publique di la prévention donc ñun prévention moo ñu ëppal njëriñ te lii bokk na ci prévention waxtaan ak nit ñi ñu xam lan mooy ci biir xam également lan lañ mën a def ba yàlla dimbali leen ba ñu mucc si mm-hmm. donc daa xamal ni man personnellement kontaan naa trop ci invitation bi te en tout cas je suis disponible à tout moment bu ngeen ma soxlaa rek maa ngi sant ko gërëm ko moom euh, docteur Ndour vraiment ci disponibilité bi nga xamante ne ko bi nga xamante ne eh, manifesté na ko à l' de notre invitation euh, fàttali ne yéen a ngi doon déglu seen émission bi di SOS santé te nag SOS santé amoon mbégte ak euh, bànneex doon dalal ki nga xamante ne moom moo di docteur Sitor Ndour docteur Sitor Ndour nekk médecin bu district sanitaire bu Xombol tey waxtaan wi nag. dañ ko jaglewul lépp lu jëm ci wàllum paludisme ak euh, naka la ñuy def ba euh, euh, jël suñuy matuwaay li koy firndeel mooy bu ñu waxee période hivernage rek xel day daal di dem ci lépp lu jëm ci wàllum yoo ak ndox yi nga xamante ne ñoom ñooy taa ci yenn koñ yi ba moom moo waraloon ñu dalal ko ci suñu émission bi ngir mu ñëw ci ni mu gën a yaatoo ci lépp lu jëm ci wàllum paludisme SOS santé nag Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité